Seydina Seexu reyuñu ko te képp koo xam ne yaa ngi wax ni rey nañ ko waxoo dëgg Seydina Seexu képp kuy wax ni rey nañ ko waxoo dëgg képp li tax ma wax loolu mooy képp ku ni rey nañ ko mënoo mënoo dem xëy siyaari rëwul seen naas si maam Seexu Amadu tubaab biñ ni moo ko rey itam ba nëga ni néewul barab sàngam laa ko rey néewul rëw dooma ngi nii néewul di ba ko rey kon rikk nañ ñu dimbali sag bi nu yàlla may ci Seydina Seexu Amadu nu yéene ni ko ndax yéene ñëpp sag li leen yàlla maam Seexu Omar it kenn du gis raw doom yent yàlla Isaa suñ borom moo feeñal ci moom bañ ko jàppee tëj ko xëy dem di ko seeti kañu yabaloon mu jiitu bi mu bunt ba da koo fekkul fañ ko tëjoon muy wëlbatiku di delsi ci ñi di seeti yontu yàlla Muusa Isaa biñ bi mu leen dëgmalee yàlla suppi ko salbu mu yor melaw yontu yàlla bi mu yoree melo wi nag ñi àndoon ak moom defe ni Isa mi ñu tëjoon ci néeg bi moo rëcc war a dem ñu rey ko ñu dóor ko daaj ko salbu ko moo tax alxuraan àdduna wa maa xataluuhu wa maa salabuuhu walaakin subiha lahum Muusa kenn reyu ko kenn salbu salbu Isa kenn kenn reyu ko kenn salbu mu ni wa maa xataluuhu yaqinan pour ñu am lu wér bal rafaahu llaahu kenn reyu ko dëgg-dëgg rey yàlla la soob mu yéege ko kaw asamaan. yàlla la mi mënoon lool nag moo man lool ci maam Seexu Omar Fuuti waaye moo man lool ci maam Seexu Amadou képp kuy wax ni dañ leen a rey maa ngi ñaan lillaahi wa a nga wat ma seen bàmmeel wala nga ma ki leen rey ak fu ñu leen reyee kañ lañ leen rey mboolem kilifa yi diine nag ku ci yàlla jox na la ji saat ñëpp nangu ko rafetlu ko waaye defe naa canaba gii njabootu canaba gu mus a jóg wax ni kilifa diine moom ji saat ba ñuy wax ca moom amul ku ko a dégg rek wax ma ñun yare nañ ñu war ma ak sutura ak teraanga ak xam mayu borom bi ba bépp kilifa diina bu yàlla may ñu xam mboolem kilifa diina yëpp mais tooge sees bi bàyyi seex toog seen fukki xel xalaatul di ko wax ndax xam nañ war ma jiñ seex ak janam njaboot ga ca bokk itam sant Mbàkke wala ñu sant si wala ñu kun sant kunta wala laay wala caw war ma jiñ seex ak ñun ñun ñëpp xam nañ ko ba kenn du ci manqué sa morom respect rikk taalibe yi nga xam ne ay rajo lañ yor te dépense dong lañ cay wut kilifa yi diine yi ñu yaakaar ngir yàlla mën nañoo am te ñoom ay oto am te ñoom ay kër am te ñoom ay dépense ba am ci avion yi naaw te duñ duñ wàññi war may kenn monsieur le ministre ñu ngi lay yóbbante lool ci président de la mu gën a jël ay matuwaay ci këru diine yi njaboot yi ci doonul dara wut lu ñu am wala taal këri diine yi tax ñuy manque respect yenn kilifay diine yi. li nga xam ne livre la buñ ci bindoon na taalibe yëpp xam ni la ca doon erreur ci maam amari ndak toog na ñoom ibadeer ba mu rectifié ko moom ñam ko àndaloon jëlaat engagement ci bind beneen téere boo xam ne amari ndak sekk la la koy jagleel xamoon nañu diis na ci seeni xol moo ñu jaarale ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wama zalika bi wa rahmatullahi taala wa barakatuh مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق صل وسلم دائما أبدا على